macha allah gis ngeen ko ni leen ko diggee woon ci njëlbeen gi muy gàmm gi nga xam ne mooy am fii ci jumaay Touba te daairatu muxaddamatul xidma ànd ak daairatu rawdu rayaahin doon ko taxawee gis ngeen ni leen ko diggee woon ci alquranul karim ji ak njàngum xasida mi ak kuréel yi nga xam ne ñoo doon jàng euh, muy ñetti kuréel yooyu kuréelu euh, jazbul xulub mawaahibu naafi am daa ak euh, barzan bi nga xam ne Serigne Ahmad Badawi moom Cheikh Mahamadul Fadal ak Serigne bu Bousso Muxtaar ak Serigne Habibu Jatara ñoo ko doon taxawee waaye tam yéen topp waxtaan wi nga xam ne moom lañ lay taayee jataay bi muy tomb bu am solo boo xam ne doon nañ ko waxtaane te Serigne Mbacke Abdourahmane doon ko def ñu ko doon def ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu doon dundee ak waa këram ak njabootam muy waxtaan wu am solo woo xam ne ñu bëree bëri euh, euh, doon nañ ko topp waaye nag euh, gis ngeen ko noonu lañ ko toppee ba ci fajar Cheikh mun taxaa ñëw yewwi mbooloo mi yëkkati fi kaddu yu am solo yi soññ yoo xamante ni xol yu baree bari tooy nañ loolu nag dana tax ñu jox kàddu gi daayira Muxaddamatul Xidma ma taxaw feeg sëñ Abdou Lahad Bousso Muxtaar mi nga xam ne kenn la ci kilifa yi daayira Muxaddamatul Xidma moom la ñuy jox kàddu gi ngir mu jàngatal ñu nag xew-xew bii nga xamante ni xewoon na fii ci jumaay Touba. gàmm gi ni ñu ko doon séentoo suñu borom defal nañu tawféex bañ génn ceeg jàmm am ci lu kawe njort Cheikh Mouhamadul Mountakha ñëw tëjal ko joxe fi ay kaddu soññee sëñ Abdou Lahad boo ñu doon euh, tënkal kaddu yi Cheikh Mouhamadul Mountakha yëkkati fii ngir mbokk yi topp MKTV di ko mën di gën a bàyyi xel gën koo mën a jariñoo jërëjëf sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xanaa di sant yàlla rek subhanahu wa ci may gi ñu mayati ñu waat bis bii may nu itam kattan guñ ko dundee ba agsi fii kaddu sëriñ bi euh, yu leer nañ ñi la daanaka jërul leeralaat dafa sant yàlla bu baax sant sëriñ Touba santal nu Serigne Touba sant yàlla ci boole gim ñu booleeg Serigne Touba euh, waxit ne am na mbégte lool ci nii ñu dundalee bis bi ci barab bi dundale ko sëriñ bi ci ni ko sëriñ bi bëggee woon te daan ko ni defee mu ne mi ngi sant yàlla bu baax ci bii yàlla baaxee sëriñ bi ak njaboot goo xam ne mën nañ koo defal lii mu bëggoon tey jii ci barab bii. muy ñaan ba addunay tukki suñ borom di ko may njaboot goo xam ne danañu taag fii di jëfal sëriñ bi ni ma ko bëggee woon ci guddi gàmm guddi gàmm nag nii rek la ko sëriñ bi daan defee gëstu bu la boo xam ne dañ ko gëstu ci mag moo xam ne dafa fekke woon muy sëriñ Modou Khari Bousso radiyallahu anhu nekkoon imaam Gédé moom moo fekke woon gàmmuk sëriñ Touba ci Thièyène fekke ko it ay yoon ci jaareem dund ko it ak sëriñ Mbacke Bousso sëriñ Modou Xarim moomu moo nettali ni nga xam ne noonu la sëriñ Tuubaa daan gàmmoo muy laltaaye ko fukki kaamil ak ñaar yoo xam ne kaamil bu nekk dañ koy xatmu suñu noppee ñu def ñetti kuréel kureelu ma jës bu kuréelu mawaahibu kuréelu muqaddamaat ak barzan ji mu wax ne noonu la ko sëriñ bi daan jàng defee mu wax ne sëriñ bi itam su ko daan def suñ ko daan def day baagante rek di dem di dikk lu ne mu andi di leen ko jóor di leen pompi laj ko xéewal gu nekk moo koy jëlal boppam ci loxoom andi joxe ko waaye loola it mooy woy ba jamono yi ñu toll nii xéewal yi nga xam ne moom lañ fi xéewloo it mën nañoo wax ne lépp sëriñ Muntaxa moo ko moo ko joxe ñi ko jox ñeneen ñi ci joxe itam ñëpp moom la ñu joxeel muy bokki taalibe yëpp ndax sëriñ Tuubaa moo waxoon ne euh, dundal guddi ganek àdduna ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa war képp ku jiitu te moom mooy njiitul mën naa wax ne sax mooy njiitul jullit ñi ci ak aw àdduna kon moom la njëkk a war war gim ko war nag mu nangu ko warloo moo tax tey jii mu fanaanee dundal guddi gi fii ci kër Serigne Touba gi boo waxtu fajar jot di ñu déglu di déglu sunu bokki hizbut ya fay jàng ba fajar jot mu ñëw tëjal ñu liggéey bi képp koo xam ne nag yaa ngi def ak jaamu yàlla di ko jéem a sellal ba egg ca mujj ga Serigne Touba ñëw tëjal la ko waroo def lu may rafet jot te xam ne liggéey boobee suñ borom nangu na ko ndax Serigne Touba du dugal loxo mukk ci lu dul yàlla nangu kon nag sant yàlla rek la ñuy def di sant bokki taalibe bi yëpp di sant kilifa yi dëkk bi yëpp ci taxawaay bu nga rafet bi nga xam ne ñu koy taxaw ci wet daayira muqaddamatul xidma waxtu bu ñu soxlaa rawatina nag ci lu demee ne gàmm gii di sant itam mbooleem ñi nga xam ne ñooy bokk ci daayira muqaddamatul xidma moo xam ñu nekk ci biir réew mi moo xam ñu nekk ci diaspora kenn ci bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk Amérique di sëriñ Amsatou Lam mi ngi nii teew ñi ngi teg ci loxoom cantuk bokk yi nga xam ne ñoo nekk Amérique te seen taxawaay rafet lool ci gàmm gi tax rafet lool itam ci lépp bépp yëngu boo xam ne moom la daayira bi di yëngu ci moom la ñuy tegaale loxoom lañuy la ñuy mboolem ku nekk bitim réew ak fu mën a nekk moo tax moo xam mu nekk Europe moo xam mu nekk Amérique moo xam mu nekk Afrique ak fu mën a doon ginnaaw moo fi teew tey nañu yóbbaale cantuk daayira bi ci ñëpp ñuy xam le ne daal daayira xet ma sant na mbokki taalibe yëpp sant na mbokki jullit yëpp sant na itam jigéen ñi nga xam ne ñoo yore woon liggéey bi dem ba tey noppaluwuñu lu fi xéwal ñoo ko waajal son lool xéwal yaatu lool te bari lool te neex lool tabarkàlla macha allah di sant itam membre yi daayira bi ñëpp dem bu ba léegi fan yi yëpp sax mën naa wax ne ajjuma ba léegi kenn noppaluwut ñoom ñëpp ñi ngi ci waajtaay wi di taxawu liggéey bi ni mu gën a rafete di sant itam mbokk yi nga xam ne ñoo doon euh, jottali kàddu gi ba ñëpp mën koo dégg tàmbalee ko ci waa sonorisation bi foofu danañ fi beral cant sunu jarbaat Serigne Bassirou Mbacke Guèye ci liggéey bu rafet bi beral fi cant itam sunu xarit sunu rek sunu soppee sëñ Njaganduur moom itam ci liggéey bu rafet bi nga xam ne baaxoo na koo ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma ñuy ñaar ñoo xam ne wax at mu jot ñooy taxaw fii lépp luy sonorisation ñoo ko fi def di ko def fii ci defen bu rafet bu ànd ak yéene waaye di sant itam suñu bokki taskat xibaar yi tàmbalee ko ci MK TV bii nga xam ne mooy euh, surtout daayiratu Muqaddamatul Xidma waaye di teg ci loxoom mën nañoo wax ne tegaale ci loxo fu demee ne académie Minan mu tegal ñu ko ci loxo yi mbooleem site yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi di ko teg ci loxoy Lamp Fall itam mu tegal ko ci loxo loxoy mboolem télévision yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp kon daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuñ kenn di ñaan ñu teewaat fi ndegeen yi déwén kenn bañ a manqué ci barke Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ok jërëjëf sëñ Abdou Lahad Bousso Muxtaar yaakaar naa kàddu yi leer na macha allah am na solo résumé na liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma bi yëpp kon xam naa damay jébbal kaddu gi sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno rek. mu war a dalal kenn ci membre yi nga xam ne ñoo nekk diaspora muy Serigne Amsatou Lam ngir ñu war a waxtaan ñoom itam seen yëg-yëg ak seen taxawaay ci gàmm gi waaye itam seen taxawaay itam ci liggéeyu diaspora bi ni ko sëñ Abdou Lahad Bousso Mokhtar junjee comme moom teew na fi moom mën naa wax ci Amérique yëpp waaye mën naa waxaale itam ci diaspora bi yëpp ndax moom ma leen fi teewal. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëñ Abdou jërëjëf sëriñ Ablaye jërëjëf sëriñ Abdou Lahad xanaa di am mbégte lool rek di li ak cant ndax jëf moom boo ko dee def ba borom jëwriñu borom liggéey bi ñëw seere cant gi mu Cheikh Amadou Mountakha suñu borom may ñu kàttan ñu defoon ko daaw mayaat ñu kàttan ñu fekkee ko ren dundal guddi gi nii ba mu jeex xanaa sant ci yàlla sunu borom tabaaraka wa taala ñaan li ci sunu borom diggee te sëriñ bi wax ko ci nabiyu fa man yoxsim mawlida nabiyuna babil huda fala yuhaasabu xada indal idaabil bi kenn du la mbugal bu ëllëgee kenn du gis ay tartar da nga am xéewal da gudd fan yi ci sunu borom digg yëpp yàlla ñu ko yàlla defal barki borom Tuubaa ñu am mbégte nag eh, dend ak sëriñ am Lam sëriñ Amsatu Lam mën naa wax ne teewal na fi Muxaddamatul Xidma fondation bu amerique nga xam ne wax dëgg yàlla bi nga xamee ne tax juddu na ak léegi 2019 la ci août 2019 wala septembre daanaka matul matagul ñaari at wala ci lay toll ñuy jëf-jëf ju am solo joo xam ne ñu ngi koy jëf ci daayira Muxaddamatul Xidma te nattu ko ci ñeenti natt wala muy liggéey bi ñu def bàq ya entretien jumaa ji waajtaayu màggal ramadaan ko ak gàmm nga xam ne yooyu yëpp dañu dajale seeni seeni seeni i seen i seen i addiye di ko indi ba gàmm gi moo ci mujj nga xam ne seen addiye ñëw na te mboolem nag plateforme bi nga xam ne taxawal nañ ko muy www touba touba mosquée touba point org nga xam ne nit ñi ci la ñuy inscrire wu di ci jaarale seeni mbir ñooñu ñëpp nañ xam ne wax dëgg yàlla liggéey bi mi ngi agsi kon sëñ Amsatou Lam bu ñëwee fanaan fii ci gàmm gi moom mat naa seere liggéey bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi koy def liggéey bi nag ñun ak waa àddina bi yëpp ñi nga xam ne ay taalibe Sëñ Tuubaa la ñoo ci bokk yam euh, dañ fee nekk rek nekkal leen fi te yéene ñëpp jariñu moo tax ñu koy yaatal kon sëñ Amsatou dañ la jox kàddu gi nga yëkkati ay kàddu ci turu waa Moukhaddamatoul ma fondation ak ci turu diaspora bi yëpp nag ndax man nga fee wuutu ñëpp ndax euh, matagam euh, sëñ Assane Diop bi nga xam ne mooy coordonné Europe mën nga ko fee wuutu mën nga fee wuutu euh, sëñ Mafari Ndiaye mi coordonné Afrique ak bokki taalibe yëpp ak fu ñu mën a nekk. asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Abdoulaat ñu ngi la nuyu di dugal sunu cant ci cant ku tedd ki yéen moom ñoo leen amel cant. ah ginnaaw bi mu fi ñëwee ci turu mu xadmat mu xadmat xidma fondation bu Amérique ah ak diaspora bépp di jottali cant ak ngërëm ndax eh, ku liggéey sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa ñëw gërëm la ku la ca boole rek kooku la amel sant kon ñun ñu la amel sant te mbir mi daal eh, sëñ sëñ Ablaat nañ ko tënk lépp def ko ci cant ku tedd gi fi jóge yàlla na fi yàgg yéen yàgg ko liggéeyal mu yàgg leen sant yàgg leen digal di ko amee ni mu ko sëñ Touba bëggee te plateforme boobu mosquée Touba mosquée point org boobu ci màggal euh, ci safar gi lancé nan beneen plateforme safar 18 point org boobu doon ko doon ko waajale màggalu quat euh, quatorze quarante-quatre xam nga quatre moom day day chiffre sëñ Touba safar 18 point org képp ku ci bëgg a barkeelu ci gàmmoo màggal ci jumaa ji bàqiya moom doo demee ci safar 18 point org plateforme bees tàq la loo fa bëgg mën mën nga caa dugal ci def ko addee sëñ Tuubaa di sant di gërëm ndax sant gi daal moom mënta mënta weesu sant gi fi ku tedd gi sant di sant mbokk taalibe yi nga bokk liggéey yëpp teg ko ci loxo sëñ sëñ Afe Bousso mu jot ni ko mbokki taalibe yëpp jërëjëf yal na yàlla yàggal seen taxawaay yéen yàgg liggéey ku tedd ki mu yàgg leen digal yéen koy defee ni ko sëñ baa bëggee mu leen yàgg sant jërëjëf jërëjëf. jërëjëf sëñ Amsatu kon cant gaa ngi noonu jaar ci waa fondation Moukhaddamatoul Khidma bu Amérique jëm ci mbooleem diaspora bi yëpp moo xam Europe la moo xam Afrique moo xam Amérique du Sud wala Amérique du Nord. ba ci Afrique centrale sépp rek ñu ngi sant taalibe yëpp daal ñi nga xam ne ñu ngi jëf ci Muxaddamatul Xidma waaye di gërëm membre yi Muxaddamatul Xidma nga xam ne ay Baay Faal lañ ay soldaari Sëñ Tuubaa lañ gis nga seen laxasaay yi duñ ko tekki mukk ngir liggéeyal Sëñ Tuubaa kon yàlla nañu sëriñ bi bokk nangul xam naa kon suñ ji li ñu ngi tënk kàddu yi foofu rek di ñaan sunu boroom tabaraka wa ñu teewee ko nëga ni déwén bi barakati Xaadim Rasul te sunu boroom it nangul ñu te ñu bañ a gis suñ bopp ci jëf ji te sëriñ bi sellal suñuy jëf euh, laqal ñu ko foo xam ne yàq yeggu fa bi barakati xaadim rasul yàlla ñu sëriñ bi nangul ci barke bi wax de waa iji lazina daamu fi xidmati wa hablahum marawmu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon ñu delloo kàddu gi sëriñ sëriñ Ablaye Diop ok jërëjëf sëriñ Abdou Lahad Bousso Thierno waaw kay jërëjëf am Amsatou Lam ci taxawaay bi moom itam waa diaspora bi dégg ngeen seen taxawaay ni mu amee solo kon daal mbokk yi euh, lii mooy li nga xam ne moom lañ leen indiloon tey ci gàmmu 2021 1443 niñ leen ko diggee woon yaakaar naa intégralité bi lépp gis ngeen ko dara rëccu leen ci ci njëlbeen gi ba ci mujj gi xanaa di dellu di gërëm mbooleem ñi nga xam ne doon nañ lëkkaloo ak MK TV moo xam ci ay télévision la Lamp Fall TV lañ ciy tudd ak mbooleem site internet yi buñ leen limee dañuy juum ak mboolem ñi nga xam ne doon nañ jël ay lien ci MK TV ñu ngi leen di sant bu baax a baax di sant itam techniciens yi nga xamante ni ñoom la ñu àndaloon ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci régi yi caméraman bi suñ ci tuddee suñu Abdoul bu Bousso mi nga xamante ni mooy gérer MK TV rek tudd nañ mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir MK di leen sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu dajale ñu ko ay at yu baree bare baree baree bare di yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha kon fii lañ leen di tàggoo ba beneen yoon ba déwén ak jàmm incha allah ci gàmmu 2022 wa kullu aamin wa antum bi xayrin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.